taskiru sabaax taskiru ca laaju sëriñ góor gi njaay ci mbooloo moo xam ne ñoo yem seen bori julli ñëw ci jàkka fekk imam ja julli ba noppi ñoom ñu war a fay seen bori julli ndax kenn mën na leen jiite ñu fay seen bori julli pour tontu ko njeem ñoo tolloo seen bori julli bu ñu dee mbooloo ba ñëw ci jàkk fekk ñu jiite leen ba jàkk ji julli ba noppi ba ñu pare te ñoom bokkuñu ci julli googa kenn ci ñoom mën naa jiite ñu fay seen bori julli njéem ñoo ko tolloole Sëriñ Tuubaa mi ngi la koy joxoñ ca aljawaru nafis Abdurahman Laxdar yi ma ngi la koy joxoñ ca téere boobee ñuy woowe Laxdar yi wasalaamualeykum ca laaji yóbbante ba ñu jaarale ca sëriñ muhammadan mbakke ñing mbokk ma ma ngay laaj e, jaamab yàlla bi yàlla da ko xéewale muy liggéey ci toolu raisin ca mbay maag witt gaag ya demee noona waaye xam na ne buñ ko bayee ba witt ko ba yóbbu sàngara les cay liggéey mu doon laaj nag ndax liggéey boobu araam naam araamut pour tontu ko moom jëm ji bay ca tool bala muy def dagan na raisin ñam wu dagan la raisin defar ko ba mu naat jàpp ca liggéey ba ba mu mel na ko yalla binde woon doom aadama man ko yey di ko jariñoo dagan na kon moom mën naa liggéey ba egg foofa bu eggee foofa ba ñu witti ko ba ees man koo jariñoo yem foofa la liggéeyam yem mën naa def loola de te dina dagan la ko tubaab ya soppi nag jële ko foofa yóbbu ko feneen soppi ko sàngara mboolem xeeti sàngara ak drogue yi ngay dégg yépp garab gu yàlla saxaloon la mu di garab gu naturel la ko soppi sàngara pexe yi nit la pexe yooye nag soppi ko sàngara ba mu doon sàngara yoonam nekku ca ña ko soppi sàngara di ko jaay ñooy am bakkaar ba waaye moom gàncax la yàlla saxal mu am njariñ mooy pom muy orange muy raisin muy yeneen yooya bay ko ba mu ñor nga wittu ko yóbbu baax na soppi ga kay ña ko soppi la bakkaar bay topp waaye moom may bay ca loola mbaa mu di ko transporter loola yoonam nekku ci ña ko soppi ba mu mel ne neen nag di mandal doomu aadama ñoo ñeera bàkkaar bay topp xanaa xamoo ne lem sax day mandal doomu aadama soo mu forox day mandal doom aadama loo ci def naka su noona man di mën na caa fekk doomu aadama su boobaa nag ka fexe pexe yooya moom la bàkkaar bay topp wasalaamualeykum. ca laaj bu màgg bale jóge ca benn kilifa ma ngay laaj ana nit ki lan la saña maye ca alalam ba bu faatoo ñu jox ko ñamu ko may ngir tontu ko daal alal ja lu maye maye buñ ko xaajoon na ñetti xaaj ya des lu ca maye maye ñetti xaaji alal jépp na jëmmi ñetti xaaji alal jépp des fa mu bàyyi ko fa ña nara nar a donn ko waaye bum ko maye ba mayee lu ëpp ñetti xaaji alal ja wasalaamualeykum ca laaju sëriñ góor gi njaay ca ngàcc gowet ca saalum sëriñ góor gi njaay mi ngi laaj ndax jigéen joo xam ne toll na ci am boroom kër sunu boroom atte mu amoon boroom kër mu génn àddina ndax jigéen jooju sañ naa toog ne dootuma am boroom kër waaw walla déet am ndax faw dañ ko war a takkal boroom kër maanaam jëmmi boroom kër ji mu war a am ndax farata la am sunna la pour ko su boobaa jigéen jooju nga xam ne nee na duut boroom kër waaye nag du njaaloo mën naa téye boppam di jaamu yàlla dara nekku ci ndax jëmmi boroom kër gi bu njaaloo naree am la nara doon farata mbaa la nara doon obligation waaye bu fekkente ne jigéen mbaa góor mën naa téye boppam ne du sëy tey du def lu naqar yàlla téye na boppam te ma ngay jaamu yàlla ma ngay julli ma ngay woor ma ngay natt asaka ma ngay dem màkka ma ngay jëf lu baax asu booba mook ki am borom kër ñoo yemu yool ñoo yemu yiw xanaa la ko kële di nara ëppew yiw am ay doom doom yay jëf lu baax mu di ca séddu di séddu ca lu baaxi doomam di séddu ca lu baaxi boppam waaye nag bu mënee téye boppam tamit nag moytu yàlla asu ah, boobaa du ci am bakkaar ñu bari dañ naan jigéen faw mu am borom kër bala ñu ko suul loolu de lislaam jigéen bu faatoo tamul borom kër tamit kenn du ko maye eh, dañ koy suul noonu jébal ko boromam rek du obligation du far force day am borom kër de xanaa bu naree def lu ñaaw rek bu naree njaaloo daal far force day am borom kër nag wut lu dagan waaye bu mënee téye boppam moom dara nekku ca wasalaamaaleykum mi ngi laaj mbokk julit mi nga xam ne sangu na farata ba noppi waaye yàlla nattoo ko mu sol tubay joo xam ne daa taq ca sobe sa nga xam ne day waral sangu farata ana moom muy def ndax day sangu jiwaat farata wala nan lay def pour tontu ko mooy bu dee tubéy ji rek la sol te xam na ne tubéy ji daa taq maniyu su boobaa la ko wax mooy mu xool aw yaramam bu dee maniyu ma taq na ci aw yaramam mu raxas bërëb boobee maniyu ma taq te dem julli ji dana baax njéem ba muy sangu farata yéene waale woon na ca julli bu dee ja daa wow nag te xamatul fan la man yu ma nekk ci tubay ja waaye jëmmi tubay ji moom sol na ko na summi tubay ja te sol tubay ju te dem julli ji dana baax waaye sangu farata waru ci benn yoon ci ñaari mbir yooy njéem sangoo na rek bala ko sangoo farata waraat daa jaamu yàlla ak soxna sa ba noppi mbaa mu gént te gént ga di waral sangu farata noonu la ñu koy defee wasalaamualeykum